aywa dëkkuwaay Tileno tey dañuy dem booru Tëngéej fekk ji fa soxna Astou Diouf Sarr euh, mu waxañu ci benn gox ak euh, xam soxna Astou nuyu naa la. ñu ngi lay fay di nuyu ñi ngeen bokkal plateau bi nuyu aussi téléspectateurs yi ñuy seetaan euh, tey nag ci seen biir rubrique dëkkuwaay ci Tileno ñu ngi fii biir Rufisque Rufisque ñu nekk ci quartier bu tudd Ngeesu lan mooy Ngeesu lan moo waxal quartier bi la ñu tuddee ko Ngeesu moom lañ ñëw pour gëstu ko léegi léegi ñu laaj askan wi ñu fi fekk. waa mu mel am na ñu ñu gis fii salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ la. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm ba. ñu fekk la fii ci Ngeesu fii nga dëkk. man waaw. yàgg nga fi. fii waaw. est-ce que xam nga tur bi fan la jóge ak lan moo ko wundu. ah wax dëgg yàlla xaw ma ko de. <laughs> mosoo ko gëstu itam. déedéet. Hmm. ah laaj mag ñi waxam. jërëjëf. soxna si salaamaaleykum. aleykum salaam yéen a si jàmm bu baax. yàlla alhamdulilah ñu fekk la fii ci Ngeesu est ce que xam nga tur Ngeesu fan la jógee ak lan moo ko waral. non man nag euh, filaa juddoo filaa laa yaroo fi laa màggee ba lay ni ma day mais turu Ngeesu moom dama ñëw fekk ko fa xamul fu mu jógee. mosoo ko gëstu jaaxalu la itam. déedéet non non kooku moom mosuma ko gëstu. d' accord jërëjëf. Aïcha ñu wëyandi rek euh, waxtaan ak askan wi ñu fi fekk am na ñu ñuy seen fee ñu dem laaj leen ñoom itam salaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam. nuyu nañ la yaa ngi si jàmm. fay naa leen. alhamdulilah ñu fekk leen fii ci Ngeesu tey dañu ñëwoon laaj leen est-ce que xam ngeen quartier bi lee lan moo tax ñu tuddee ko Ngeesu ak lan moo wund tur bi. waaw Ngeesu de man dama juddu fi laa juddoo yaroo fi màgg fi mais xaw ko de dëgg yàlla. xaw ma mosoo si def gëstu itam. déedéet mosuma si gëstu de. su ma su gëstu moom. jërëjëf yaay booy ñu dem moom itam ñu laaj ko salaamaaleykum soxna si. salaam nuyu nañ la. di sant bu baax maa ngi leen di fay bu baax a baax. geesu nga dëkk. waaw fi laa juddoo fi laa yaroo. Mm, est-ce que xam nga tur bi lan moo ko waral. turu geesu bi déedéet. man soo ko gëstu itam. déedéet moom su ma ko gëstu tamit. Mm. dégg naa geesu rek waaye xaw ma lu mu signifie. Mm. ak lu mu tekki daal. mu ngi noonu mu mel na ñu bëri ci askan wi ñu fi fekk xamuñu lan moo waxal turu ngeesu bi la si noonu dañuy dem seeti ki nga xamante ne bii moo ñu nar a leeral dëgg-dëgg turu ngeesu fan la jóge ak lan moo ko wundu ayca comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi taxaw ak ki nga xam ne mooy Seydina Ousmane Ndoye moom nag moo ñu nar a leeral dëgg-dëgg turu ngeesu bi fan la jóge ak lan moo ko wundu salaamaaleykum Ousmane nuyu nañ la. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah fay nañ la soxna si. tey na ñu seet si woon la comme ni ma ko waxee léegi rek doon def gëstu si ngeesu ñu bëggoon la nga leeralal ñu turu ngeesu bi fan la jóge ak lan moo ko wundu. waaw ngeesu day euh, mooy quartier bi fii ngay gis ne le mooy séparé ngeesu ak ndënku. man euh, ndënku laa dëkk mais ngeesu euh, falaa fréquenté bu may xale ak loolu yëpp nekk naa sax président ASC bi falaa football aussi sama carrière yëpp waaw ngeesu nag ñun li ñu si wax euh, ci cosaan ñu dégg ko si mag yi dañu waxoon xam nga quartier bi ngeen taxaw nii tey mooy ndënku pay mooy le premier quartier de Rufisque quartier bi moo jëkk am Rufisque mooy premier quartier de Rufisque nekkul woon fii mu ngi nekkoon fële si géej donc bi géej gi di avancé di avancé si la ñu toxu boo gisee nag euh, ñu bàyyi woon fii yëpp parce que fii dafa amoon ay gargamboose la woon ay gargamboose fii yëpp àll la woon bon il pare que euh, dafa amoon ay jinne ay jinne yoo xam ne euh, benn saaw saaw mooy yoon yoon moo fi amoon foo nga daan jaar ba dem géej benn saaw rek moo fa amoon li ko waroon yëpp ay gargamboose la donc mu amoon ay ay jinne xam nga des choses comme ça donc boo fi daan dugg rek boo xasee bu dugg rek pour jëm géej daaw a gestu waaw lañ laa wax kenn du fi gestu gestu kenn du gestu xam nga boo gestoo rek da ngay gis euh, xam nga lu la lu la jommal daal donc nag euh, ñu tudde ko gestu si biir gestu boobu gestu boobu moo dem ba ñi ñi di mal prononcé di wax geesu geesu geesu geesu loolu moo indi turu geesu bi. kon daal mën na jàpp ni si bañ a gestu boobu. gis jinne fa la turu bi jógee. geesu fa la turu geesu bi jógee. waaw parce que ndënku fii comme ni ma la ko waxee rek mooy premier quartier ci Rufisque moo fi jëkk am ci Rufisque moom la ñuy wax ndënku pay moom fi lañ daan jóge nag di dem géej boo demee géej pour uti jën parce que bu njëkk lépp euh, pêche la woon quoi xam seen liggéey moo doon euh, euh, napp mbéy booy dem na ci napp it foog nga jaar fii Ngeesu te Ngeesu dafa dafa difficile woon ndax dafa amoon ay cactus comme ni mu la ko waxee boo fi jaaree nag boo si bu dugg rek nag doo geestu. ku la mënti oo rek doo gestu moo tax ñu tuddee ko gestu boo demee ba gestu bul gestu de boo demee ba ba gestu ñu tuddee ko gestu gestu ba moo indi gestu nii. loolu la ñu wax quoi incha allah. jërëjëf mu mel ni histoire ngeesu bi leer na ci turu gestu boobu nga xamante ni moom la ñuy mal prononcé moo dem ba mu nekk ngeesu ñu duppee ko quartier bi li li lañ leen andiloon tey ci seen biir rubrique de koy ci leno di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen quartier incha allah. merci beaucoup. jërëjëf soxna Astou Diouf Sarr ñu koy jaajëfal mu demoon te ngeej quartier bu quartier bu ñu naan ngeesu mu mel ne euh, baatu wolof boobu di gestu euh, fa la mbir mi dooree El Hadj Malick mythe ou en tout cas li indi tur bi mooy euh, euh, barab la bu nga xam ne daanaka àll woon amoon benn yoon bu gudd. dañ lay wax ni nag boo xësee dugg ci yoon boobu. emprunté ko bul geestu même bu la nit woowee sax bul gestu parce que mm. boo ges ko mun nga gis lu la jommal. Mm. man nag euh, ñun dañoo am ay mythes yu nga xamante ni wala ay ak ay réalité mm. yu nga xam ne dañ lay ay fasu benn tànk mm-hmm. ay daa am golo gu fi kare daa am Euh, ginaar gu am téeméeri cuuc mhm. yooyu yëpp dañ ñu ko daan wax ci ci ay euh, mythe yu nga xam ne ci ay koñ la daan nekk donc koñ bi xëy na buñ ci gars yi daan jaar di dem géej mhm. dañ wax même boo demee boo déggee lu la woo mhm. wala boo déggee bruit bul geestu ndax boo geestoo mën ngaa jommi loolu dem ba tudd turu ngeestu bi c'est important ñuy xam tur fu mu jógee macha allah et ñu bëri si ñun mës nañoo gis ku jommi Ah nit ku joom mi dañ ko doon gis tout le temps donc dafa mujjee nekk euh, loo xam ne lu ñu teg lu ñu teg suñu ay gët la ñu ne la gis kenn mu am ay jafe-jafe ñu ne la kii dafa mës a joom mi waaw ñun ñun dund nañ ko. Mm. ñun suñu génération. parce que boobu aussi dëkkuwaay yu melul ni mu meloon ni mm. euh, oto yi bariwul woon. Mm. Euh, pratiquement lumière aussi bariwul woon. Mm-hmm. te dafa am ay ruq yu nga xam ne ak ay quartier mm-hmm. lu ñu lay wax fii bu fa guddee. Mm-hmm. wala bu fa jaar timis. wala bu fa jaar njolloor. donc yu ci bëri boo ko mosaan a def. ah, ah, ah gis lu la lu la jommal nag. léegi amatul lool de. loolu euh, waxtu bu ne la dox. waaw bu ah, ne la dox. liggéey. voilà boo yoree liggéey moom parfois euh, doo am heure booy booy génn ak yu mel noonu. mais bon lu ma bàyyi xel tamit dafa amoon borom. c'est léegi guddi gi moom defe naa nit ñi ñooy rab yi. <laughs> Hmm? ñooy seen ñooy seen rabi bopp nit ñooy jombal bopp am na solo. l'homme de la nuit. voilà am na <laughs> aywa. suñu suñu jeune doyen eh, yegsi na ci plateau bi eh, ñu ngi lay nuyu eh, Abdoulaye di la wax bonne et heureuse année li nga fi nekk fi nga nekkoon baax na de parce que Abdoulaye dafa xëy tey jàpp yenn candidat yi kii Cheikh Tidiane dafa leen jàpp kañ suba ba léegi mu ngi dee. bu ne bu nee réseau bi Malick mënoon na cee yegg rek. lam hmm? de la nuyu. lam de la nuyu lam de la naay te ngi nii kay. lam de la nuyu <laughs> ko. maa ngi leen di fay guddi guddi moom dafa am ñu ko moom. waay tey dañu daan wax sax li mën nga daje kus kontra. waay <laughs> ak ay fasu benn tànk. waaw ñun la bëgg bëre bañ bëre la lay wax. mais <laughs> ginaar rek tuuti parfois nga gis ne ko sama xal classe bi nga wax leen ñu ne la man mas naa koo gis. mas naa koo gis. Chérif moom fasu benn tànk bi la dajaloo. su doon bàngi lu nguur <laughs> man ba ma dugal sama xam si biir <laughs> boo ko naree jombal moom moom lay lay jombal la wax la moom <laughs> moom dina la expliquer le pourquoi nga war koo bàyyi mu dem parce que dafa dafa nekk ci mission bu ma duggee sama kër tamit du ma génnaat le mythe du fasu benn tànk mu nit dañ doon baal lundi mardi mercredi jeudi jeudi ñu tëgg la ah, jeudi guddi àjjuma ñu moom di àjjuma lay génn ci lay doxantu <laughs> léegi nga gis sax ku xëy na dégg naa tànk ko ba tàyyi am na joom mi moom lu am la mm. gis naa ci moom ay kaay dafa taxoon sax dans le mythe même le camp froid daawul génn jeudi ci guddi mm, mm. c'est <laughs> na dañuy bañ ñaari jinne yi daje <laughs> am na solo merci beaucoup Abdoulaye Cissé moom lañ fas yéene àndal ci jàngat bi jàngat boobu sax lañuy ñuy sóobu euh, gannaaw euh, publicité ñu dellu siwaat ci kanam tuuti incha allah.